an moo ko waral mais conseil des ministres laa génne dem place de l' indépendance jiital leen ñu marche dugg palais xam nga kooku problème amul mais nag Ablaye Wade ba muy def volonté politique bi madame Gouge ba nga xam ne droit de vote rek la doon revendiquer ñu rendi ko moom la ne fajal leen ko deret ji nga xam ne moom la tur loolooy volonté politique. xayma gi ci Macky Sall nag ci. maa ngi ñëw parce que tant que waxuma volonté politique bu Ablaye Wade. pour mm-hmm. wax la ne la yegg na ci bëggoon ko inscrire ca yooyee jamono ci ci constitution bi comme nii Côte d'Ivoire def. bi nga xamee ne ñëw na ñu voté ko 2010 parlement bi déparé 22 euh, euh, pour cent ñëw 47 pour cent de jigéen daal di indi Sénégal ci loo xam ne dafa dugg sax ci niveau diplomatique parce que ci àddina si yëpp Sénégal nekk dixième au niveau mondial nekk deuxième au niveau africain ci wàllu ci jigéen déedéet euh, parité bi moo indi lii parité bi moo indi lii assemblée donc li ñu ko mën a gërëme moom mooy bi ñu ko defee deux mille euh, deux mille euh, dix mhm. appliqué na ko deux mille douze te dama ne la woon loolu dina amug bi irréversible la kenn mënu ci woon a dellu ko jamono jooju mu baax na mhm. parce que moom baax na ci diplomatie bi ñu ko attaque appliqué deux mille douze mu nekk dixième au niveau mondial bi Zuma ñëwee parité bi la wax bi Hollande ñëwee parité bi la wax bi Obama ñëwee parité bi la wax ñu mën am loo xam ne dañ ko mën a tudde la diplomatie de la parité mais tegu ci leneen tegu ci leneen parce que tegu ko ci ci biir nomination wu jigéen ñi nga xam ne doon na leen nommé nommé na benn ministre de la fa de même premier ministre bu jigéen ba mu nommé premier ministre bu jigéen defe naa ci seen rajo bi laa toog ni leen bu mu nekk intermittente de scène parce que def jëkkul nekk choix jëkkul nekk choix am choix wu banques yi la amoon bi ñu décrier banque yi mu teg fi jigéen ji pour apaiser ba jigéen ji amee problème politique mu teg ko ci Dakar ba mu kilee mu mu génne ko def gisatuñu volonté am pour mu taxawal jigéen ñi du ci assemblée nationale ca la nga xam ne moom lañu war a cëral bopp itam conseil départemental Bambey mu nangu dañ la jëlee mu nangu te benn jigéen da ko ni woon bu dara sax symbolique bi ndaxte conseil départemental moom moo ko indi ci sagos boppam ak acte trois ka góorgóorlu ba jëkk a nekk présidente conseil départemental ci loi ba nga xamee ni jëkk nañoo wax mbir mi seen ab Ablaye Daouda jàll mi xamuñu fu mu jëm ak ñoom moom ñoom ba mu ko jëkkee junj conseil technique am ba ko wax da ko ne loolu fees na dell ci réew mi nañu leen bind na circulaire ne leen ko jàppandi na bàyyi leen booba man fekk na démissionné na ñu yónni commissaire pour mu xool ndax démissionné na ñu ni ko démissionné na mu ni ko nañ seet date bi loolu deful benn volonté pour jàppale jigéen ñi ñaareel ba dafa dafa ni muy xiironte jigéenu opposition bu mel ni Aïda Mbodj kooku dafa nekk loo xam ne ku bëgg jigéen dëgg-dëgg bëgg a jàppale jigéen dëgg-dëgg bëgg a àndandoog jigéen dëgg-dëgg bëgg joxe exemple lu jigéen bëgg a joxe modèle renvoyer modèle de femme boo xam ne ñu ngi koy woo fu nekk te taxul de man li ma bëgg ci jigéen ñi teewul barki dem bi ma jógee euh, Côte d'Ivoire ñëw euh, sensibiliser waa Côte d'Ivoire ni leen da ngeen a mës a xëccoog Sénégal boobu ñu ngi dugg ci football bi keroog bi ñu éliminé Sénégal Côte d'Ivoire la ma fekk. man leen nee ngeen tey da ngeen di àndandoo équipe nationale du Sénégal mais Sénégal am na lu mu leen rawe muy parité Sénégal dixième la yéen cent cinquante sixième ngeen dangeen ngeen war a euh, changer sensibilisation bi yegguma ca chef d'état ba mais moom laa ko yónnee moom laa ko yónnee argumentaire ya ma def parce que man loolu moom ma ñor. léegi en tant que jigéen.